Pro International ànd ak ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. salaamaaleykum euh, auditeurs Sen Info donc euh, toujours dans le cadre si émission des mercredis du docteur Konaté. Euh, fan yëpp seetlu ngeen ñu ngi wax waxu feebar yi nga xam ne du euh, ñu wàllaatee wax nañu waxu diabète wax nañu waxu tension euh, ñu gis ne que ne vraiment intérêt bi léegi tas na tas na même si àdduna bi euh, nit ñi ñu ngi intéressé wu même ñu ngi woo de la France des États-Unis Euh, partout dans le monde donc euh, ma profito pour euh, nuyu remercier suñu auditeurs yi nekk en Europe donc euh, plus particulièrement sama benn grand frère ñu koy wax euh, Boubacar Kassé euh, il m'encourage beaucoup il e il vit en France am na sama beneen xarit tamit boo xam ne daf may encourager lu bëre moom mooy bàcc mi ngi États-Unis bàcc bu tonton Mbaye Fall donc euh, daf may euh, encourager tout le temps donc si émission yi donc ñu leen di remercier di remercier également auditeur yi ñu ngi gis ne que ne ñi ngi gën a bare ñu ngi gën a intéressé aussi question yi nga xam ne euh, moom la ñuy présenter public bi tey nag dans les mercredis du docteur Konaté dañuy wax pas ci benn feebar mais dañ leen di wax ci Euh, li ñuy wax les facteurs de risque cardiovasculaire c'est donc benn émission boo xam ne dañ koy axé sur la prévention pour euh, ñaax nit ñi ñuy euh, moytu li nga xam ne moom mooy indi benn yenn xeetu feebar yi feebar yi nga xam ne ñoom ñooy laal surtout xol bi di laal cerveau bi ah Euh, surtout par exemple euh, li nga xam ne moom mooy andi lu ñuy wax AVC dina am yenn émission boo xam ne loolu du yàgg sax parce que euh, ñi nga xam ne daf leen intéressé di ma laaj kañ ngay wax ci AVC kañ ngay wax ci AVC donc loolu du yàgg ah bientôt dina am benn émission boo xam ne moom nañ ko jagleel ak ay crise cardiaque dañ ma koy laaj également chaque fois Euh, li ñuy wax tamit malaise malaise dañ ma koy euh, laaj chaque fois donc dina am euh, donc émission boo xam ne moom nañ koy jagleel donc si risque cardiovasculaire yi ñaari façon risque la ñaari façon risque risque yi nga xam ne mën nañ ci agir nañu ci agir moom mooy premier. premier kii bi premier type de risque bi euh, moom mooy affaire u at xam nga at moom ñun euh, mënuñ ci dara euh, affaire donc âge affaire sexe mooy am na risque yoo xam ne gën na bëre ci góor yi gën na bëre ci jigéen yi donc loolu ñun euh, mënuñu si agir ak risque yi nga xam ne moom mooy feebar yi nga xam ne dafay arriver au niveau dans la famille donc loolu nañuy wax les antécédents familiaux loolu mënuñu ci agir mais am na ay risques yoo xam ne euh, mun nañ si agir euh, risque yooyu essentiellement par exemple lu mel ni tabagisme donc mun nañu naxante wala xaw a tiital tuxkat euh, yi de telle sorte euh, suñu mënul euh, bàyyi dinañu wàññi cigarette bi li ñi nga xam ne dañu am tamit yaram loolu moom mooy obésité obésité bi mun nañ ko mun nañ ci agir tamit parce que nit ki suñ la démettre au régime ñu am luñ la ñaax fuñ la dugal pour affaire lekk bi euh, def loolu tuuti entraînement euh, bu boobaa dinañu agir ci sa yaram bu boobaa tamit euh, loolu dinga gis ne que ne baax na pour sa santé beneen élément bi moom mooy c'est la sédentarité mooy ñi nga xam ne dañuy toog rek ne faax du ñu def dara du ñu dem fenn du ñu yëngal seen yaram loolu bare na sax ci siñu jigéen yi Euh, jigéenu Sénégal surtout euh, loolu ñoom ñu bëri nag dañ koy ndamoo jàpp ne ne ah plus ñuy toog plus ñuy am yenn yaram yi euh, dañu ne ah da ngeen di rànk da ngeen jonga ñu kontaan alors que ñu ngi ñu ngi lor seen bopp donc am na yeneen éléments yoo xam ne tamit par exemple lu fi mel ni cholestérol bi ak triglycéride Euh, yooyu tamit euh, suñu xoolee mën nañ ci agir parce que suñu xawee te loxo si ñi nga xam ne euh, donc ñoom ñoo koy si ñooñu lay lay lay lay am genre feebar yooyu cholestérol ak de triglycéridémie bu boobaa même garab mu am na ñoo xam ne foo am na loo xam ne par exemple garab nañ leen di jox am na loo xam ne. Euh, mun nañu agir ci euh, fonctionnement wu nit ki euh, defloo ko sport comme ni mu ko waxee ci yeneen risques yi defloo ko tuuti sport et xam loo ko yan lekk lay gën a lekk bu boobaa tamit ci affaire cholestérol bi ak yooyu mun nañ ci agir donc loolu mun nañu permettre ñu prévenir ay feebar yi nga xam ne par exemple ay crise cardiaque ay AVC ak xeetu feebar donc yu mel noonu dina am yenn émission yoo xam ne donc comme ni mu leen ko waxee au début donc dinañ ci si dellusiwaat pour euh, gën a euh, wax gën a ko yaatal gën a ko yaatal donc pour nit ñi gën a gën gën a xam euh, donc tey dañuy. yemale émission bi fii donc di remercier euh, suñu technicien suñu caméraman Abdel euh, di remercier waa régie bi donc euh, di leen jox dox daje donc la prochaine fois Ndofène merci hein et à très bientôt aux auditeurs de Sene Info merci à la prochaine